IFM Forum Musique sëriñ Moustapha Sy euh, yi kàddu la yëkkati kon waxoon on peut tromper tout le peuple une partie du temps mais jamais tout le peuple tout le temps man Macky Sall laa bëgg mu bàyyi xel il peut pas être un deuxième Abdou Diouf te li may wax man xam naa ko Abdou Diouf di jaar ci gannaawam pour rek ses comptes li may wax xam naa ko parce que dem nañu tenté pour arrêter ma ailleurs te nañ ko tëralee yëpp xam naa ko. moom mii man ànd bi ma ànd ak moom moo leen tere nelaw ba tax na buñ ko dee yóbbu kaso mag moom ñu di leen waatal ci alquran ni bu ma duggee kaso soixante dix pour cent du peuple sénégalais du fanatisme c'est